ay gi na mbàkke Cheikh Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallu yaay rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni li Fallu yaa juboog li am nga nga ni li yàlla fam nga nga ni li Bàmba hamdulaay sareetu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baari ab xalifa di moom xarnu bee Tuuba jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu.com ñu am mbégte ànd ak yéen xam ngeen ne euh, tey jile nag euh, nekk bés bu am solo bés bi nga xam ne rek euh, moom la ñu jagleel Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké moom nag nekk ñaareelu xalif général des Mourides ci bés bu màgg boobu xam ngeen ne ren ji nag tombe ak xew-xewu jamono waaye terewul ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké njaboot gi yëpp di dundal bés boobee nga xam ne ci la ñuy fàttaliku jàmbaar jooju nekkoon ñaareelu xalif général des Mourides waaye nag liggéey am solo yi nga xam ne liggéey na ko Euh, ci euh, dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit liggéeyal ko umma islamique bi yëpp euh, ba tax na Serigne Fallou moom fu ñu ko tuddee rek ñu bari seen xel dem ci lu bari ba tax na tey jile day gis nañu mbooloo mu bari di bàyyee ko fu nekk nag ñëw ngir dundal ko waaye tamit méngoo ak jamono daanaka ci jàngum alxuraan ak xasaayit ba tax na équipe bu 24 actu yi di fas yéene ànd ak yéen bañ dara umpu leen ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ba tax bootam gi dinañ dem seeti leen ànd ak ñoom waaye ziar yi nga xam ne itam mooy bàyyeekoo fii ci jumaay Cheikhul Khadim ji ngir ñu fa yéene ci ànd ak yéen euh, kon Bamba nekk ci caméra bi ñu ànd ak yéen euh, fas yéene ànd ak yéen won leen li nga xam ne rek moom moo di bàyyeekoo ci bisub Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. voilà nga sànni ci ay kaddu tey ci bisu Serigne Fallou bi ak euh, li ngeen di def nii tey. waaw li ñu def nii dañ koy def rek ngir jëm señ faalo jàppale ko Serigne Fallou soppe Serigne Fallou ñoo koy def ak ay turandoo Serigne Fallou def ay bernde ay xéewal andi ko fii ci jumaa ji jox ko yàlla yi ah, ndaxte am ñu ngi bàyyi ko Touba Ndamaat waaw yàgg ngeen koo def yàgg nañ koo def waaw xanaa sant tey kii rek tey bëgg-bëgg rek waaw. sëñ Fall amee ko fay ñu ndaw yi. jërëjëf soxna si li ngeen indi fi lan nga. lii fas yéene liggéey ak sëñ ndax ñun dañoo nekk ay yaay Fallou Seye Mouhamadou Fadal amuñu lu dul sëñ Fallou chaque année ñu di ko liggéeyal di ko indi an mu jël muy gën a yokk ñu ñaanal yéen tamit borom yokk leen bu baax di ñaanal képp ku nekk Touba rek li amuñu lu dul sëñ Fallou di wax macha allah di ñaanal suñu sang suñu Muntaqa suñu borom yàggal ko fi loolu ba doon méeg taar bi kenn du moom ñoo ngi koy ñaanal suñu borom ko fi loolu dama doon ay cër. kenn du sëñ Bamba kenn du Sëriñ Touba moom rek la bàllay sobri sëñ Mbacke Maram yal nañu ko yàlla fayal sëñ Touba kenn amul mu amul amul kiyam lu ko kenn mënu ko fay daal jërëjëf borom Touba ñoo ngi sant yàlla bu baax Alaaji Fall mi ngi ni mu laa tuddee sama sama caat mi bëgg sëñ Fall na ba bu ne sëñ Fall ma jooy barki sëriñ Touba Mbacke kenn du sëñ Fall Alaaji Fall borom di nekk Sambaay sëñ Abdou Karim Mbacke kenn du moom barki na moom rek jërëjëf borom Touba